daw jàng moo tax bi mu màggee tollu ci liggéey daw liggéey très bien mi ngi noonu <laughs> damay gaarwaale <laughs> am sa benn xarit mooy yàqaale ko waaye yaa gën a xam mu ngi noonu gars na mën nañ ko alaaji Papa Ndiaye ci l'international <laughs> mais sama xarit bi yaa sañse nag yow bi yaa sañse ah gis nga de man day fi mu toll nii yow mii la sa xol topp été bi yow fi mu toll nii daa topp sa xol ci été bi. damay fo damay fo rek. waaw day fubali quoi day fubali ji. waaw ah, yi laay def mais ballon sa salissant boo ko fubalee après dina doy waar non xam nga sama doom moo ñëw tey junior waaw te xam nga xale yi dañ koy topp dañ koy topp waaw tey star lañ invité bu <laughs> waree ñëw nag faaw ñu génn bagage yi génn bagage yi ah. mais da ngaa leer da ngaa bind fi mu toll nii sama xarit waaw mais yaa ma gën a xam alaaji boo demul fenn moom <laughs> meloo ne alaaji Mara fu ñu seen pagaay may seen ko fu ñu seen Papa Ndiaye ko fu ma romb ci gis ko. <laughs> dajeeg moom. bàyyi Cheikh Ibrahima mais manqué nga ma <laughs> naa la manqué. bari ci tubaab man mi namoon naa la lool. namoon naa la lool di nuyu sama sama bi. Uh-huh. moom nee naa ko yaa mën yaa ëpp doole waaye yaa gën a féete xale. wallaay dëgg la ah. waaw ah. Seydou Modou Diouf. temps ah, moom day dëbb dëkk bi ba mu moom. li laa namoon yu neex yi muy xeeñ nii den ak man <laughs> aw ma jabar mais dina ma soulager tuuti li kooku naan dina ma xaw a metti tuuti. dina ma touché tuuti. waaw yooyu laa demoon mais xam nga si ay mbir rek mhm. di gërëm bu baax may mun a di ko wax kontaan naa gis naa lépp mhm. di gërëm papis di ko wax gis naa lépp aadama waa tele bi kontaan naa ci yéen ñëpp mhm. yàlla na jàmm yàgg nii rek la yéen ñi ñuy seetaan ñëwaat nan ñu ngi préparé ay yeneen yëf yéen toog leen rek alaaji Mara yaag aas bu ngeen taxawee fii man kenn du ma namm ndax yéenay man maa yéen loolu dëgg la wala loolu moom dëgg la doxal loos si ndax di bërbëtë Ousmane jomaay jomaay Sonko doxal loos si ndax di bërbëtë <laughs> waaw kenn du ko dindi aca <laughs> aca mi ngi doon ajar aas yi maa ngi lay bëgg xam naa ne sa week-end moom tarkalla neex na tey moom belli nga ci lundi bi moom tey moom da nga ñëw rek yow man xam nga c'est que avec une très bonne mine c'est xam nga téléspectateurs yi ñoom foog naa xam war nañ miin ci sa sa say wax li nga may naan damay belli man sax su ma belli. ah dangay belli woo. Ah, sax su ma belli gën a garaaw parce que week-end bi bu neexee début de semaine bi booy ñëw da ngay indaale bonne mine. yow la moo la sama week neex. non xam naa feeñ na ci yow. yow week-end bi ma sonn dem wër lu ma nettali wër wër wër ba sonn nga naan ma ay. non fi mu li ñàkkul dara loo nettali jarul wër sax doo sonn sax ci wër bi. ankay. Ah, ah. nettali yu féroce yu dëgër yi. waaw yooyu foog nga dem xuus ko. am na dañuy laqatu Jean Papa Ndiaye xam nga dañuy laqatu def yéen ñi. waaw foog nga dem xooli leen. noonu laa <laughs> jaaree rek euh, nuyu bu baax a baax ñi nga xamante koy defee les jours ah. di nuyu euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi bu baax a baax di leen bàyyi xel ah di leen wax ni suñu xelañ ci yéen bu baax a baax waaye ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër yi tawat euh, mënuñoo dem fi nga xamante ni moo di hôpital rek ñoom nit ngi leen ñaanal yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat seen biiri njaboot ñi nga xamante ñoom la caabi féete gannaaw ñu ngi leen di ñaanal di leen bàyyi xel fu ngeen mënta nekk aussi euh, ñi nga xamante ñoo dëddu yàlla na yàlla yeesal yërmande bu baax a baax euh, Mara foofu laa jaare delloo la kàddu gi Mara am na solo bu ko defee ñu jaare noonu ñu itam dalal suñu invité très rapidement parce ku kan moo ne ci réseau bi fan yi am na lu bees daal. am na lu bees yow daal am na lu bees daal. réglé gu mu réglé. wallaay ñeex gi mu koy ñeex. di ko def wallaay xaritu Mara la sëriñu Mara. nu mu tudd Bamba bi ne. waaye am na lu xew waay. barki bi noo fan yi moom. am na ku mën parce que ñi ñëwul ñi mënul woon. waaw <laughs> feeñ leen. ay Bamba yàlla sa jaamu yaa ko waayi. Bamba yàlla sa jaamu yi leer na jaf bi nice na. teg nga ko ci fulla man li laa bëgg. ñun dañoo nuru kuy fo te fawunu. waaw ñun dañoo nuru kuy waaw ñuy fo di. Euh. nit ñi boo fawul doo leen bëggal. <laughs> dañoo nuru ñuy fo Bamba ci. yaa mën kay li xale naan yaa mën kay. waaw mën moo Bamba. Bamba nuyu ko ak ñi féere ci wàllu régie bi yëpp ah Pape moo ne ci son bi bëgg nañu yeneen booy yi nga xamante ni ñoo fa nekk ay stagiaires lañu ñoom xamuñu dara. ci ay ay <laughs> mi ngi noonu. mais Pape ku bon la te soxor. ah Pape Pape kii rek la bañ de. <laughs> na ko na ko defal ñeex yokkal ko jaf bi fii toj. <laughs> Papa Ndiaye jaxase rek nga far yow donc ñu daal suñu invité yaa ngi koy tudd sànq Junior Balago la ñu koy wax très connu la toile gars yi di ko suivre bu baax a baax ci TikTok bi euh, à nos jours mi ngi cumulé plus de 300 000 d' abonnés ñoo xamante ni ñu ngi koy flow. di ko bàyyi xel sur les réseaux rawatina ci page TikTok am bu ñu nee Junior Balago nag boo ko déggee xel dina dem ci ku mel ne Thione Balago Seck Wally Balago Seck je sais pas est fait partie de la famille wala est dafa bokk ci xale yi nga xamante ni euh, Thione daf leen motiver à ce que bëgg musique mais l'essentiel du ñu naatable que papa Thione moom moo di idolam parce que boo ko di déglu Thione ngay dégg mhm. donc tey aas dinañu dundaat leneen ci ay ay ay œuvre Papa Thione dinañ dundaat leneen ci ay wayu neex yoo xamante ne boo ko déggee rek xam ne kii am na lu mu laal ci faramaareen mm-hmm. <laughs> aca junior dañu lay dalal mais laataa ngay nuyoo dañ lay bàyyi nga introduire dugg ci benn morceau boo xamante ne nag moom ngay ubbee camper le décor mm-hmm. après boo ko defee ñu soog a nuyoo téléspectateurs yi ayca yow mi gaaw ci yow mi gaaw ci man yaay booy suma gàllaaj boo bëggee yow sama jikko dee sama yaay duma ko boye duma ko kafe Him. gën ci man yow mi gaaw ci man maane maane suma galaaj baayu booy doom joom yaa <laughs> ah Papa Ndiaye. Hmm? nuyoo xale bi am na solo de. nuyoo bu am na solo waaye man fu ma njëkk a jëm ak mooy. <laughs> Uh-huh. nan la dimbali ma rek nga wax ma nan nga def ba ba naan Papa Thione. <laughs> waaw Ndiaye. waaw man nag eh, Papa Thione dafa nekk koo xam ci man euh, euh, man naa lépp lu ne ci man moo ko def ci man. Hmm. parce que 2016 euh, moo ma moo ma moo ma formé. Hmm. moo ma yor mu nekkoon penc mi dama daa ñëw répétition Papa Thione. Euh, barxam maa ngi koy nuyu bu baax barxam sama waa ji moom defe naa ni euh, link boobu sax moo ko doxoon dama daa ñëw répétition Papa Thione bu mu ñëwee moom bu ñëwul man la ñuy yéegal ma way répétition moo xam deux morceaux wala trois morceaux heure bu Papa Thione ñëwee damay wàcc ma àggale répétition hmm. mais moom bu ñëw rek gars yi man la ñu juyal euh, benn jour mu fekk ma may way mu dugg rek fekk maa ngi woy benn son buur buuru neex na buuru daale wooye pare mu ni ma gën la travail waat mu fekkaat ma benn jour may waat buur tamit mu tombé waat si mun ma travaillé ko ma ñëw mu fekk may way maam maam euh, maam booy bi mu ne ma euh, c'est bien te defe naa ne bi mu ma c'est bien nag ba léegi lépp ngi bien donc euh, moom defe naa ni def na lu bari ci man Papa Thione mhm. ndax Papa Thione comme ni c'est bien rek donc am na lu mu gis yow te li tax mu ni c'est bien Papa Thione a gën a compliqué si mhm. musique donc comme ni c'est rek jàpp naa nga waaw war naa mën a baax daal mhm. donc moo koy ñaanal xam nga yàlla yàlla yàlla suuf oyof si kawam. ak mboolem ko mu fekk ak mboolem ku ko fekk. waaw moom référence bi lépp sama papa nag. di mm-hmm. sama xarit bëgg ma lool. Mm-hmm. waaw ma nuyuwaat nag sama papa Père Ousmane Seck. Mm-hmm. ma koy nuyuwaat. ndax nag defe naa ne euh, lu waaye gërëm gërëm te gërëmoo ki euh, Olof Ndiaye day tax ki tax ngay tax te mosul taxaw ni maa tax boo gëree ko def lu bari ci man tamit sama papa. Ousmane Seck bu baax a baax Père Ousmane borom daal loolu la woon man li tax ma laaj ko loolu maanaam daa dugg rek ma gis ay ay ay technique Papa Thione. waaw te technique gu Papa Thione yombul. waaw moo tax ma dugg moom foofu parce que xam naa ni. Mhm. nekkul lu mu xëy rek teg rajo di ko déglu nii rek. waaw moom moom moom li tax ma laaj ko xam naa ko parce que xam naa ni ku ko jege lay war a doon. Mhm. parce que Papa Thione dafa garaaw de. Mhm. Papa Thione. ci ay technique gu. waaw la ilaha illallah en tout cas chance la nga am chance su euh, jege artiste bu mel ni Papa Thione rawatina mu nekk koo xamante ni suñu borom def na mu nekk monument ci musique sénégalaise hmm, ñu ngi koy ñaanal suuf woyof ci kawam ni nga ko waxee euh, nuyu na téléspectateurs yi ba noppi ah dama lay bàyyi. boo amee question ah, après ñu demaat ci benn am naa am lan moo tax turu euh, Junior Balago ak kan mooy dëgg-dëgg Junior Balago. waaw Junior Balago benn ndaw la rek waaw bu dëkk Yoff donc Junior Balago bi man ñu ngi ma daan ooyee may doog parce que man dama daan ku way kuréel dama daan wayantu. waaw mm. ah, dama yàgg neex baat parce que daara ji ma nekkoon buñ daan way buñ daan euh, daaj un mm. comme daaj mooy ñi jëlee esprit yi di xool kan mooy daaj kan moo gën a neex baat kan la ñuy mm-hmm. jël. Mm-hmm. benn jour dama doon wayantu di daaj. Euh, daaj bari woon trop ku daaj ni la yow dama toog mais man bu ma yuuxoo dañ kii moom jëratul ñu yàgg feneen kii mooy continuer. donc may continuer yàlla may ma baat nag ah, ma koy sante donc waaw may dégg Wally Diouf di dégg Wally ba léegi sax dama koy dégg. Mhm. mais Papa Thione un jour euh, bi ma ko nuyoo bar xam ni ko sa doom a ngi nii Wally Diouf dañ ko non non Junior Balago. ok Papa Thione njëkk a génnee tur boobu moo ne Junior Balago donc bi mu nee Junior Balago ah. ma ne ah pourquoi pas Papa Thione Junior Balago gi ma oowee nii xëy na moom dafa gis lu ñëwagul. Mm. te gis na ni Junior Balago bi ah mën na maa yóbbu foo xam ne te sax mu choisir Junior Balago. Mhm. Ah, bu nee Junior Balago rek kon donc Junior Balago la war a doon mm, am na lu mu gis xëy ma jàpp ni Junior Balago bi waaw gën ci man mm. après bëggatuma ko may wax mais xam nga coonay bàyyam te coon mi ko xool bu tuddee ko Waly mm. coon moom moo ma xool bu tuddee ma Junior Balago te bu ñu ko tuddee Waly jig na ko kon jàpp naa ni mu tuddee Waly Waly bi jik ko kon Junior war a maa mën a jik loolu daal loolu daal en tout cas talent bi moo ngi fii Papa Ndiaye wax na ko relever ku mel ni Papa Thione c'est pas évident yombul rawatina bu fekkee yaa ngi woy di nekk ci norme musicale yi dañu lay bàyyi nga duggaat ci beneen morceau bu ñëwee waxtaan bi gën a yaatu après man am na ay question alaaji Papa Ndiaye am na nee na daf ñi may ci buur de ndax nee na Thione moo na koon gën a ok lu buur wala da nga bëgg da xool liggéey bi fu mu toll ah, buur mën naa ko ah, mën naa ko way nii rek en acapella quoi ah. ok wala nga def li nga sentir waaye ah. morceau bi. non bàyyi ko mu acapella la buur après gars yi soo ko accompagné ci beneen morceau. tuuti rek ah. laal tuuti rek. <laughs> bardi la acca ñu dem. buuru neex naa yi buuru neex naa yi buuru buuru buuru a buuru buuru daali buur neex na doomu buur neex na tey jii ku sañoon di moom olof ñambaas bur ayu dëgg yaa ñoo aay bur neex naa yi waaw buur a ngi noonu nga gis benn boy boo xamante ne day seetaan Papa Ndiaye ba waaw moom ni muy xamee Papa Ndiaye sax Papa Ndiaye du ko xamee dëgg la maanaam maanaam buy suivre da nga dem ba xam di nga xam ne kii mbaru tànk la wala mbëru loxo la. Ah. wala mbëru mbot la wala mbëru muy bëre suuf la <laughs> booy day def affaire yoo xamante ne. yu gën lay doon. Ah mais lu ñuy xaar ci moom ñu ah, xool fu liggéey di xaar ci yow ñu xool fu liggéey bi toll. waaw nañu dem ci beneen morceau. nga nga bégalaat téléspectateur yi. bi ban la ci ban lañ jëm xam naa gars yi namoon nostalgie ñi amoon nostalgie bu yëpp. si nag euh, dinañ bég. def naa ne morceau boobu. Mhm. waaw mhm. bëgg yëpp siiru jaam boroom ak yéen ak daali maa daali bokk na ci son yi ma gën a bëgg ñetti son yooyu. ok ak sama yaay ji ma tijjee léegi ndax nag ah sama yaay nag defe naa lépp moom la. Mhm. waaw defe naa nag. Eh, am na lu mu liggéey ba yàlla may ko doom yoo xam ne tey hmm. ah, Sénégal ñëpp ko bëgg hmm. macha allah fu ma ñu bëgg ma hmm. donc ma koy sant bu baax moom Mané Fall jëringoo maa la bis sàmba kulu ma ci si ngi nag maam Fall ko man loolu yaa ju nangoo ko maam daa taxoon waaw ah, sama waaw daa taxoon seen maam ak taxoon moom bokk maam seen maam ay douze bal lañ doon dóor pour mu dégg yaa ju nangooy maye loolu maa ngi koy sant ko gërëm Aïcha ñu dem ci beneen morceau maara jigéen day nangu jigéen day nangu Sidi Jami borom maa ci xam dara lépp lu yëngo aw la ñoo koy ji yëgu fekk woon yu wax yu ñaaw am da ba mu bàyyi lool bàyyi ko sa ginnaaw ba ma gisee di mare moo la ginnaaw ngay yàq sama dedu ma jaadara ba ile dema jara finge moy biramonya ay dal manda hosetin yaay gor nay mesa bigenja mangone yaay biramo biramo biramo biramo yàlla jaay sonnal nañ la xatal nañ la mbërgal nañ la waaw waaw nga gumba taxaloo ñu ngi kii du sa nawle ñu ngi naan bàyyi ko ku ko gën nga ma yàlla nga ma yàlla Masise madameloy Masise xari kaso yaay sara dabito anta ndike sar ko domino ya bax yo bale yo bale ma papa nyaay papa nyaay papa nyaay Papa Ndiaye Papa Ndiaye mbokkum yaayu alse mbokkum yaayu maar mbokkum yaayu mara bu la lekk dee nga la maani waaw rey la génnum réew Papa Ndiaye dal man naa Papa Ndiaye gis nga di wàngee di dem yàlla koy def ci jaamam yàlla koy def ci jaamam Barugone ya sinija Chongo de majara naan standing ovation même téléspectateurs yi seetaan sax nañ tàcc parce que li ñuy wax naan loolu doonul taalibeem da doon sëriñam ñu lu mu jàngul du ko tari mm. roy nit baax na mais c'est bien nga fexe ba la muy def nga def ko na mu koy defee ba boo wooyee tey moom ñi bëgg Papa Thione yëpp xam naa ne non seeti xol seet na ajaratu aar waaye moo mën a way nag ah Papa Thione moo mën a woy <laughs> sama papa moo ko mos a wax ñuy waxtaan ci waale mu ne ma ñu naan mën naa woy ak mënul na jël li bàyyam woyoon di ko wayaat nit ñi dañ koy bëgg waale ku mënta way da ngaa soxor mhm. ci ñi ko yéene waaw <laughs> waale mën naa way de naa way loolu wax sa <laughs> loolu attanu ma ko en parlant de ak moom eh jubóo wuñ de kii <laughs> ay Papa Ndiaye waaw waaw ma loolu waaw mais nag suñu connaissance man ak Wally dafa xaw a dafa xaw a des. Mhm. parce que euh, xam na ni maa ngi way. Mhm. Euh, mais digloo gu sama voix. Mhm. Wally mën na ma gis si vidéo nii rek parce que dafa am ñoo xam ne sax euh, ñu ko gën a jege. dañu ñëw sama vidéo ni kaan bi jàppale ko. booy bi def ko nii booy bi def ko nii. mais Wally soxorul. jërëjëf a Wally a baax te ku mën a jàppale jeune talent yi la lu tax lu tax doo def comme ni booy yu bari di def dem. soirée wala baara mun di fekk ko fa yëg ci seenam. man nag damaa yor ñaari jikko. damaa xaw a yor jikkoy lébu. Mhm. ba damaa xaw a yor jikkoy Papa Thione. Mhm. jikkoy lébu mooy mooy lébu dañ ko xamee. bañ diñ diñ diñ diñ. lébu dañ ko xamee bañ. xam nga ak diñ lébu kenn du ko yeb. Mhm. lébu man nga nekk star ba ñëpp ñëpp ràññee boo ko rombee nii nuyu ko du la faale. Papa Thione ku ko xam xam ni jikkoy lébu la yor ndax ni mu yoree jikkoy lébu tamit mooy que Papa Thione euh, yoral ay milliards. moom tamit boo ko lijjantiwul lijjantiwul la. Papa Thione loolu dafa ma neex ci moom diine ji. fulla ji ngoor gi fayda gi dafa ne si man donc nag euh, Waly ñu bari dama leen au téléphone non Waly foog mu foog mu recevoir foog ñu toog foog mu ñëw seen Waly Dio bëgg dem rek am na ku ma ko def mm-hmm. moom tam ku jegeen Waly sax xam naa bu fekkee mu may seetaan xam na li may wax mm-hmm. ma oo ko téléphone waaw mun ma loolu dinaa si dox mais xam nga rek gars yi dinaa si dox dinaa si dox la ne wax mais mais dafa am loo xamante ni doo xaar kenn ko la ko doxal mm. dafa am loo xam ne xam nga tey Waly ça va lui faire plaisir mu gis tey ay xale yu roy papaam parce que loolu dafay dafay tax liggéey bi papaam liggéey du naax saay parce que tey Wally il a son propre style tey comme yow ni nga mën a wooyee ñu lay toog di la déglu ngay relever coon ñuy déggu coon peut-être Wally newul foofu Wally il a sa propre il a propre style. ci côté musique am ci côté voix am ci côté. xanaa xamoo ni Wally Wally Pape rek ko yem. waaw Wally boo mënee boo mënee imiter Pape Thione da nga koy. da voilà donc kooku nga dem ci nga dem ci moom approché ko du du du xam li lay jariñ ça n'a rien à voir ak côté dignité ak yooyu noonu. Wally gisante nañ toog waxtaan deux périodes de deux temps. ñu waxtaan mais euh, jotuma na la indi sama soirée. Hmm. nga sa voix na indi sama soirée nga way ma ah. xam naa na indi sama sama soirée nga way bi ma waxee ah, après mais xam nga ne gars yi lay dañ lay dañ lay dañ yi dañ lay dañ lay wax yoo xam ne ah. xam nga tey na ma yàlla jéggal boo boo boo kiiwul yàlla tuuti mooy mooy li nga wax ci biir wooy bi sànq rek <laughs> boo boo paree tey mm-hmm. dinaa la booleeg Amady parce que Amady moo géré kaw bi waaw te loolu waali bañu ko ndax yow ku la gis rek gis na waali mm-hmm. waaw ndax nag ndax nag xam nga tey mënu maa dem soirée waali bi fokk wala ma dem baara mun wala ma dem feneen te kenn woowu la dëgg la dëgg la je suis d'accord te kenn ëw ma ma taxaw fa di xëccoo bëgg a yéeg bëgg a yéeg a mais boo paree tey ma boo laaj ëmadi nga dem parce que xam naa ne man ak Waly bi ñu duyoo te Waly. Hmm. Waly wax dëgg neex suñu borom dama ko bëgg lool. ndeysaan naa ko Waly amul lu mu génnee tey dama ko mën bala muy def parce que léegi dama koy gis ci TikTok bi sax yenn xale yi dañ koy demandé dañu woyal ay woyu Waly hmm. mais bu ko relever aussi dangay ngay sentir que ni ni mu mënee ci Papa Thione noonu la mënee ci. après dinaa la dinaa la laal moto bi bala may ñëwaat ci Thione. Ah. dinaa la laal mais kaa bu garaaw de. waaw mooy. Bombali def na rasta de pour ñëw. <laughs> maa ngi bëgg kaa Bambal leen kenn du ko kenn ci magam ñi de. waaw def nga say rasta mais Bambal leen kenn de Bambal waaye moom magam moom rek. ah. ni ko waa Bambal waaye du magam moom magam ñëpp la. ndeysaan te ni mu bokkee moom. même la façon dont il parle il ressemble à Papa Thione. Mmh, kàlla kii waaw ah. non sànq ci biir woy wi dama doon xaar fenn laa ko doon xaar mooy mu def benn ci tiggu Papa Thione yi mais bi mu wooyee ba jël baaraam bi teg ko ci nopp bi nii ci laa ne kii nag topp na Papa Thione ba mu sës. loolu <laughs> sama papa moo def loolu xam nga Ousmane ah. moo na mooy mooy woy surtout bu woy droit de l'homme. ñoom ñëpp ci coon lañ ah, noonu la ñuy woy bu ñuy woy. waaw def nii oh, loolu donc loolu euh, waaw. tig boobu rek laa doon xaar depuis depuis. mais Mara ñooñu am nañ lu garaaw nag famille Seck. gaaw doo ci gaaw a gis ku mënta woy de. déedéet famille boobu. ñoom ñëpp macha ay ndaanaan de. ba si ba si bi mu woy fee euh, son bi lu bu mujj bi. jege kiiraay. waaw kiiraay euh, moom bind naa ko maa koy convoqué incha allah hmm. de eh, xam moom libu la nag. monsieur li mu la de loo ko. <laughs> léegi dañu war a dem ci aas yi <laughs> dañu war a dem ci aas yi mu indil ñu li gën a fës ci toile bi wàllum buzz potin ak euh, people mais laataa loolu en deux minutes demal ci ci ci jege kiiraay ñu xool. atiwaat Saba kiiraay nañ ci dem tuuti rek. waaw ah, tuuti rek ñu xool. <laughs> yes. Bamba yaa ngi toj de. fi dee rek ñu wax samba bàyyi ba jaale di la jooy ayoo ndeysaan ànd ak waa këram toog di la jooy ndeysaan mbaa xam nga mu ngi ci ndox jéggi ndox te du lab kon day xool ngay dóoree ak sa morom <laughs> waa ba ma jaaxal. <laughs> Ah, <laughs> ah, dina way de. nga déglu parole ya ba pare mu nekk loo xamante ni actualité la. Sénégal loolu la ñuy dund. li ma benn xale bu sa wax ma a ko yow moom xaw ma bis mi takk lu ma lay waxal mu ne ma xamoo ne Sénégal ñaar duñ fi bon ma ne ko kan ak kan mu ne ma séet ak néew. mu ne ma la mu ne ma ku dee ñu waxal la lu baax. buñ lay takk loo bon bon waa koñ bi dañ lay gërëm. mais loolu lu lu doy waar la donc àddina noonu lay doxe nit ki ci bi muy dund nangul ko la mu mën nangul ko ak ñàmbaaram seedeel ko lu baaxam su dëddoo nga gën koo seedeel. dëkk bu naqaree dund neexee deewee waaw mooy Sénégal <laughs> on enchaîne avec Asi euh, Junior ñu ngi dellu si ci yow en tout cas téléspectateurs yi ils sont nombreux à nous suivre moo xam su nos plateformes Facebook YouTube wala mu nekk ci télé bi ñu toog di ñu seetaan ci canal bi wala TNT bi ñu ngi leen bëgg bu baax a baax Adjaratou Asi lan moo gën a fës ci toile bi très rapidement ñu dellu si Junior. Euh, bokk na ci anniversaire wu euh, Wally Balago Seck bi nga xamante ni ñoo ngi ko doon féete mu doon nag loo xamante ni Mara. Mm-hmm. fës na lool lool lool ndax ñi nga xamante ni ñoo ko bëgg ko. am na si ñoo xamante ne peut-être ñëwuñu nekkuñu Sénégal mais ñi nga xamante ne ñoo ngi fii wër nañ ko ba ci eh, ki nga xamante ne fu mu toll nii mooy yaayam mm-hmm. mooy wéeruwaayam muy eh, maamam bu jigéen ak soxnaam ca eh, wet ga mm-hmm. ma jëloon si quelque éléments am na ci boo xamante ne aussi moom ak doomi Momy Seck yi la mm-hmm. mu leen di takkal lam mu doon geste boo xamante ne moom ci boppam daf leen takkal ba pare toog nekk di xoolaat xale yi nga xamante ne ñoom la magam bu jigéen bàyyi fi ñu dem xoolee éléments yi ñu waat ci plateau góorgóorlu voilà mu ngi noonu euh, Mara sànq yaa ngi ko doon wax anniversaire bi nekkoon euh, samedi bi euh, passé le 27 passé mu doon loo xamante ne nag soxnaam di soxna ay dara moo ko ko defaloon comme surprise waaye li ci gën a yéeme rek mooy ñi nga xamante ne moo di ay doomu magam ay doomam sax laay wax. ak maamam bu jigéen boobu nga xamante ne nee na mooy chérim ndax bu dara bu muy dara la ko maamam jël rek fat ko donc mu ngi noonu mu doon surprise boo xamante ni. Mm-hmm. neexoon na ko trop macha allah ndax di nga gis émotion bi ci kanamam mu ngi noonu. waaw ah, xanaa di ko wax rek mu dund lu bare bare bare bëri sama rakk jooju séeri soxna hmm. ah maa yaasin may sa biige maar sama rakk xarit di sama waajoo xamante ni fonk na ma lool man ba ma xam ko barki démb maara daal yi hmm. dama ñëw di am ko may gunge rek mu ne ma grand frère kaay ñëwal ñëwal ñëwal ma ñëw mu ne ma lu la neex ma ne ko dama tànn lu ma neex waale boo dundee rek hmm. Sénégal day gën a neex boo dundee géwél yi dañuy gën kontaan boo woyee day gën a neex yàlla nga suut sa bàyyi ay fan. séeri soxna ni mu li nga wax rek aasi. Mm. woo famille bi famille moom yi def anniversaire am loolu moo lay wan ni c'est la mm-hmm. Mm-hmm. te rafetal rek la xam moom ak def lu baax ak wax lu baax. Mm-hmm. loo dund doyul dundal ba wér waaye ti kaloo ba xaa nga jox ko cadeau. <laughs> en tout cas anniversaire bi fi mu ñëwee am na solo vu que euh, traversé na jamono yi ñu génn. ay moment yu xaw a metti après décès moom yi par la suite décès yaayam. Mm. c'était c'était un peu difficile donc baax. ñu changé ko un peu atmosphère bi moo tax jabar ju baax loo ko jëndee jar na ko organiser anniversaire bu toll nii def ko surprise woo sa ay xarit say jegeñaal yi kër gi fees ah ñu ñu feeteel la ko en tout cas ça fait vraiment plaisir daal yàlla yàlla gën leen boole man li may xaar xam naa <laughs> fii la ma booyee di téye naan ma looy xaar pour takk jabar man jabar ju baax laa bëgg ju lay defal anniversaire jar naa am de ah jar naa am wala jar de man sama xaar bu yàgg bii junior bàyyi ma gën a xaar rek non bu baax yombatul de. d' accord naa am na koo xam ne de jabar ji fii la koy xaar ci buntu bi bu pare mu jiital ko ko ñibbi. jot na de Papa Ndiaye. <laughs> ay on enchaîne wul booy bi wul booy bi ngay lan. Ah, booy ba dama sa la. <laughs> on euh, ñu naroon ko dugal nag ci ay guuto yoo xamante ne moom nee na du ko nangu benn yoon. Mm-hmm. ci euh, façon de parler Euh, mu demoon ci euh, soirée Wally Seck ba Wally Seck woy ko fa woo ko ci pëjë ba mu taxaw mu woy ko lu neex. Mm. Euh, mu am nag luñ ko fa jël avec sa nouvelle danse. waaw ticket avec sa nouvelle danse. avec sa nouvelle danse <laughs> mu ngi noonu ñu bi ñëwaat ci bi. laal lawbe laa nag ma laal su day dem bay boo seetloo tubaarikàlla Wally Seck dafa gëstu daane ana tikal lawbe mm-hmm. ba moo ngi mën a wan leen ma ba ma gis ko te dañ maa woo Mhm. loolu moom maa si teg sa bët mariage sa may sa bigéen nag tubaarkàlla mhm. macha allah mhm. a bëccëg bu guddee garabu dëmm soog a nelaw maa ko wax maalaw bi désormais léegi ah, lan nga gis ah, pourtant ñëpp waykat yëpp way la bëgg a invité ku mel ne Sidi Diop bëgg na laa invité ku mel ne ah, ku lan la daa wax la leen ndaw tëggaat diggante l'international je suis toujours une personne. man Diggal l'international la ñëpp ma bëgg. nee naa la du ma wutal sama bopp noonu. man ñëpp ma bëgg ma diggalaw bi. Uh-huh. waaye dama ne. xoolal Jibi li mu def. Jibi Kay def maa woy woy wu neex. Uh-huh. tubaarikàlla ubbee ma ko waaye doful ndax ba mu ko defee ba tey. Uh-huh. suñu borom da koo taal mu gën a tàkk tey gën a gën a jëlee la waaye Maria Sine Moussa Bigué tubaarkàlla ci ma wooyee fii. Mm. ah tubaarkàlla foog ne damay ñëw ku ne bëgg naa ñëw mm-hmm. foog. Mm-hmm. waaye ma ci kenn leen toll sa laaj. Mm-hmm. te boo xoolee tubaarkàlla son bii nag. bu ko reprise. mu neex tubaarkàlla ànd ak ndax moom dafa bruit. waaye dafa am silence. jukkoon la laay toog ah Tické mbaa lii suba su jox li bëree nii duñ ne. li maam Ndiaye li Sidi Diop wooy maam Ndiaye moo tax nga dem forcé ju waale waale wooy la est-ce que du loolu. leen da xama naa ko ndaw te gàtt. waaye lu sekk fii si seen bi neex na trop. amul mm. dafa ñaan kenn ko. waaye Mbaye si Ndiaye. Mm. laay lax benn semaine. waaye Fall man de barke allah ji Fall ma man fii seen barke mosuma gis. ah déedéet déedéet li ma wax ah da nga ma siy tontu parce que est-ce que duñ ne baatu gi ndaw duñ ne tikki li waay li li Sidi Diop moo way. li mu ko li mu way Maam Ndiaye wooy bi kii moo la énervé ba nga dinga ba xabtalu si waali waali wooy la est-ce que du demee noonu. fii nii neex na neex boobu dama koo toj ba pare li ci gën a neex mooy ni ma fecc ak Wally Seck ni ma ànd ba pare Wally nee na mosul xam ne loxo yi nii lay def def ni ba pare ànd ak bon ba pare biisu ngoone tubaarikàlla ah. oh non xale yi nag taral nañ ma tubaarikàlla macha allah. Eh, déedéet tikkee damay bañ suba jëwkat yi jëwkat yi na euh, voilà mu ngi noonu euh, Mara moom nag kenn du ko dugal ci ay ndax bu <laughs> euh, lu mu woy Maam Ndiaye moo tax nga dem ci waali pour waali way la hmm. ñu ne ko dañ koy laaj ci loolu. xam hmm. nee na lu ko waali way. waaw looloo ko ñor amatul fenn. <laughs> looloo ko ñor. ok war a dégg léegi léegi réew bi dañuy bëgg wax looloo xam ne sa yoon ñëw ci. non ba pare dañuy jaxase ñu jotewul dara wallaay ndeysaan Sidi mi nga am wërsëgëm ni mu ko war a amee mm. Waly mi nga am wërsëgëm mi ngi a mm. ni mu ko war a amee Ndiaye kasaalika waaw ah, bokk na ci artistes yi njëkk a woy Mame Ndiaye Savon à part mm-hmm. Keba Seck donc ñoom ñëpp ay nit lañu yoo xamante ni c'est des personnes influentes ngi ci euh, showbiz c'est normal tey Sidi Diop woy kii Waly Seck woyaat ko wala Waly woy kii Sidi woy ko ku ci am euh, envie baali Waly nga baali Waly ku bëgg a baali Sidi Diop nga baali bëgg a jaxase ay nit ñu jotewul dara. yaa pat ah, daal jaaxle naa nag. yow da bañ sa kër tas ndax ñoom ñeent ñi nga bëgg a takkandoo def ko ci benn kër. <laughs> maa ngi lay kaawe de <laughs> loolay problème bi. voilà rek kan ak kan Tikaloobe ko tuddee rek. man dama leen bàyyi waaw léegi boo taxee déedéet man ñoon ñëpp dama leen bàyyi jabaru bandi laa bëgg. wu yaay Ndiku rek naan ma tous. dégg nga Ablaye dikku. <laughs> dikku rek laay topp di <laughs> ñoo ree nag. Baara Asi. Ah. Euh, yi jeex na. jeex na loolu moo gën a fës tey ci wàllu réseaux sociaux yi quoi. Mm, waaw non en fait dama indi dama indi lu tuuti. waaw parce que junior moo fi nekk. ok waaw balaago bu ndaw. donc suba ñu indiwaat leneen. suba ñu indiwaat leneen c'est important merci beaucoup am na solo ñu delluwaat ci junior waxtu bi mi ngi xëcc jëm ci jeex euh, man question bi dañ koy yóbbu juste ci plan de carrière bi actuellement liggéey fan la toll. Euh, yan mooy sa ay projet est-ce que itam à part waali ak yooyu yaa ngi créé sa répertoire bopp boo xam ne tey soo wootee soirée wala ñu engagé la ci mariage wala leneen di nga ambiance al xale yi. waaw euh, maa ngi bind sama yëfi bopp nag. Mhm. te am naa samay sama bopp yoo xam maa ko way. Mhm. may profité di di si gërëmaale moom Birame Alaaji Mbor mu si ni ma dem ko defe naa ñëpp ko xam mooy ménager Modou Lo biram moom di sama di sama papa waaw ah, borom yof way naa ko benn son boo xam ne man maa ko bind way ko ko waaw mhm. ah, mu teral ma si nag bu bëri waaw ku si mel ni Jara Pédestal moom a moom tamit way mhm. euh, naa ko son defe naa ne bi sax dégg nga ko waaw moom tamit way ko son donc euh, waaw mais nag sama carrière nag jëluma ko rek nii damay way son papa Thione jëmale suba mhm. mais donc euh, damay ñamante si papa sama papa Thione mm-hmm. te eh, bëgg naa di ko fa sama papa Thione ndax ñi nga xam ne bëgg nañ bëgg nañ papa Thione mënatu ñoo am loolu loolu euh, mënatu ñoo gis papa Thione mu leen wayal ah donc man euh, du jël sama kii yëpp man ni lépp papa Thione la mais euh, li ma gën a kii daal mooy focus si papa Thione bi mm-hmm. mais teréew nag maa ngi bind sama yëfi bopp waaw

deux cent quinze cinquante quatre quatre vingt cinq waaw mhm. ah, wala nga def soixante seize cinq cent soixante dix huit double zéro dix sept <laughs> waaw ñaari numéro yëpp commencé woo insha allahu rabbi muy mariage muy yokk follow yi rek junior balago junior balago waaw ok noonu la demee daal delluwaatal ci numéro de téléphone bi nga ne. 77. Euh, 215 578. 12 017. te ku la contacté moo xam mariage wala cérémonie bu mu. ak loo mën di woo incha allah naa ko ñëw jéego ak sama ak sama orchestre ba mu ba mu neex incha allah. très bien am na solo Papa Ndiaye léegi léegi yaa ngi koy wax juddu bee rëy deret jee fort nañ ko tëjee kon. mën ta ñàkk mën ta ñàkk waaw. naa la bàyyi kon nga tàggatoo lébu borom Dakar yëpp waaw maa ngi xanaa di di di di suma mag rek Moussa. Mhm. di ko wax yàlla na ko yàlla may xolu muñ. Pape Cheikh suñu doom ja suuf oyof ci kawam yàlla xaare ko àjjana. mën ta ñàkk dund beeg yooyu ñoo ànd. loolu rek moo ma téye woon moo tax fan yi gars yi gisuñu ma. la waaye àdduna noonu la quoi. àdduna waaw on se donne waaw demain incha allah mais laata loolu damay remercier euh, Charmel. Mhm. donc ñoo ngi waajal euh, seen inauguration wu euh, boutique. très mhm. bientôt incha allah. numéro bi nag mu ngi nekk 77 232 12 05. ñi nga xamante ne dañoo bëgg ay perruque ak bu mu mënti nekk ah su ngeen demee ci moom que ça soit frisé que ça soit romance lépp lu ngeen xamante ne soxla ngeen ko ci wàllum perruque rek su ngeen leen woowee incha allah. dinañ leen livré ba seen kër wala ngeen dem ba ci boutique bi incha allah ngeen récupéré Charmel du Aïcha waaw la ba ubbeeku na ma nga waxuma lay beeku na mais gëm nga ni moom rek moo fi jaay original <laughs> barke yéen bi ñeneen ñëpp loo ci jënd waaw day ñampe non ay heure ngay am de <laughs> Charmel rek mooy jaay lu baax ndax xale ba ko moom dafa yaru uh-huh. dafa bëgg lu baax mais maanaam uh-huh. tey sama gërëm gi kenn rek laa ko jox borom jaam ci rési bi Amadou rek waaye Bamba waay. Eh, Bamba Bamba si fier de toi tu es le loxo bi macha allah laa bëgg boo nekkee foofu defal la war. waaw <laughs> ah, Bamba daal nekkoo jërëjëf bi di wax téléphone ak sa yi yow defoo loolu. déedéet <laughs> ay yéen mën ngeen yàq nit de. Ah, liggéey bi am na solo de. Ah, lu bees neex wax na la ko. réalisation lu sax nag. réalisation sax nag dafa bokk ci ci ci émission kii seetaan da nga koo war di xoromal mu bëtam bi kii. Mara gëm ni musuma gëm ni musuma gëm ni am naa tey bi man. non man damaa jëlale sax eh, qualité dimanche bi mais damay dama bëgg nga bàyyi xel wàllum illustration bi mu lay defal xam nga di la defal ay bagages yoo xamante ni kii seetaan dafay am envie seetaan. sama yaay dafa ma naan wax am nga maamu portugais mais tey laa ko gëm. <laughs> bamba melu ma woon nii. ndax tey bi ndax tey bi. très bien. ajo mi ngi doon El Hadj Papa kon daane nañu ko man damay tàggatoo tàggatoo bi tey ma yóbbu ko ba diwaanu Louga jéggi dem ba. Nand jéggi na frontière waaw tey maa jéggi frontière yi Nand laa dem. Ah, nuyu suma xarit euh, Bour Gueweul automobile nga xam ne mi ngi waajal gàmmu Ndand. moom suma xarit la bu baax boo xamante ni buur géwél nit bu mën a wax lu baax alaaj Papa Ndiaye nit bu mën a defar nit boo xam ne keroog damaa daje benn géeram mu ne ma buur da nga koy may junni fu mu taxaw ne million la loolu bokk na ci li ma ko bëgg ma ne ko loolu nag mooy jikkoy géwél donc euh, bi mu jëmale ko ci comportement wu musulman jullit ana nan la war a comporté woo ci biir société am te muy lu mu ci di rendre hommage suñu ay maam mi nga xamante ni moom mooy xalif général des mourides ak suñu maam Serigne Mansour Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidiane donc le ndànd incha allah man moom damay dem ca gàmmu xaw ma ndax Papa Ndiaye dina ñëw am déet mais man dinaa dem alaaji. ah suñu waajoo dafa ñu dem. waaw ku baax ñëpp bokk ko mara. <laughs> dem moom man du ko yëg. non yow da sëy jigéen buy sëy day gàtt tànk yow mënoo dem ba naan ndànd daa sori. naan moom mënuñoo dugal sax jabaru jàmbur ba fa la tudd. waaw kay teewul mënoo àndul ak yow. <laughs> dinaa dem de <laughs> Aïcha rendez-vous suba incha ñu dellu ak beneen invité ci beneen numéro ambianceur ñu bàyyi junior mu tàggatoo remercier ñi mu bëgg remercier ñëpp boo paree nag nga dugg ci benn morceau ñu ambiance. ah waaw waaw maa ngi gërëm suma yaay. Mhm. suma yaay maa Fall maa ngi koy gërëm di gërëm suma papa waaw. Euh, ñoom defe naa ne lépp ñoom la. lépp ñoom la bala may gërëm kenn dama koy gërëm. Mhm. di gërëm nag maam Thierno borom daaru mhm. waaw ma bëgg ko loolu mu sama wasila donc moo tamit yàlla na ko fi yàlla yàggal di gërëm njabootu murid laayeen tijaan xaadir ñoom ñëpp maa ngi leen maa ngi maa ngi leen maa ngi leen maa gërëm di leen ñaanal képp ku ne sa jal bi si yow di gërëm tamit waa yoof mhm. yoof nga xam ne tey awma seen fay man nu ma mel yàlla ak waa yoof la mhm. waaw ñoo ma yëkki ba may ba ba ma toll ci kaw tey euh, bu dul woon ñoom euh, euh, defe naa li lépp du am mhm. waaw may gërëm maam Njaga sàmba di gërëm maire Diadou Mbaye mi nga xam ni tamit moom defe naa ne mooy géwal Yoff mhm. mais Diadou sama yaay suma xarit defe naa ne moom nee naa ko yàlla mooy la doom joo a man maa lay bi donc mhm. maire Diadou Mbaye maa ngi koy gërëm mhm. di gërëm maire Aminata Paye di gërëm Moustapha Tall di gërëm ki nga xam mooy El Hadj Birame Ngingue ñoom ñëpp maa leen gërëm dañ may jàppale maire Binta Youm waaw sama lébu bu ñaawal bi maa ngi lay gërëm madame Jekk Sikkim <laughs> yaayu euh, sama sama bu ma limee rek juum waaw mais maa ngi ñëpp daal képp ko xam ne rek yaa ngi bëgg Junior maa ngi bëgg gërëm waa Yoff yëpp surtout lébu gi nag maa ngi leen gërëm bu baax da ngeen def mm, léegi nag maa ngi waaj lu rëy Papa Ndiaye maa ngi waaj loo xam maa ngi ko def sur lendemain tabaski mm. five laa ko bëgg a defee incha allah sargal lépp ah? ah, mm-hmm. yi guddi ndakaaru loolu wakaam yoof tëngeet barñi yéen mm-hmm. waaw ma si oo ñëpp di si oo mm-hmm. képp ko xam ne ab lébu nga rek ak képp ko xam ne sax doo lébu ngay bëgg junior balaa ko ñëwal ma béggal la incha allah war si ñëpp lendemain tabaski lendemain tabaski sur lendemain tabaski sur lendemain tabaski mm. maanaam buñ tabaskee ba mu am ñaari fan ba mu am deux insha allah rabbi balaa boobu di nga dellusiwaat ci plateau maara jot naa sama message su frère uh-huh. nee na àjjuma day ngeen dañu ñëpp nañ ñëw kan la xam nga ko Pawlish Mbaye affaire ah, yi ngeen nee <laughs> sama xarit bi insha allah dinañ ñëw temps bi jeex na deux minutes yaaw ah. junior ñu bàyyi la nga tëj plateau en beauté bi nag àjjuma dinañ ñëw allah accu ma ci daan ma ci daan sama papa ba xam accu mm-hmm. saa ñu